asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu suñu mbokk internet yi suñu mbokku téléspectateurs yi ñuy suivre ci télévision TMS TV ñi ngi jàkkaarlook la xalif général de Guinée di Thierno Moulé Sow le roi médecine traditionnelle the king of the king ngeen gis nag fii euh, bagage yu ñu gis ni ay garab yu war a dem bitim réew la bu ñu nee nag bitim réew dana dem ba Europe dana dem Asie dana dem Amérique nga xam ni sëñ bi moo ko euh, war a yónnee ay taalibeem jëm ci wàllum euh, faj yi nga xam ne mu ngi koy faj Sénégal ak di ko faj euh, wàllum àdduna kon euh, sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la dalal ci TMS TV nga expliquer ñu lii lan la ak ci yan dëkk la jëm ci àdduna alhamdulilahi rabbina alamin aouzu billahi a ashaytani rajim wala hawla wala quwwata illa billah al azim gannaaw ba ñu sante yàlla ñoo ngi julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu waa TMS TV bu baax a baax macha allah di la nuyu Moustapha di nuyu Kara ci caméraman bi macha allah di nuyu Alseeni di sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi sallallahu alayhi jëm fële ci bitim réew mm. fan la jëm ci France mm. ci Ousmane Samsi Samarouchi la jëm bu demee ba foofu mm. mu daal di koy nag yónnee su ma yeneen taalibe yi nekk euh, Amérique Marietou Kébé moom Amérique la ne macha allah suma taalibe la dañu waxtaanoon pour ñu defal ko ñaan jamono yu confinement bi ñëw mm-hmm. liggéey mënatul dem ñu téye ko ba confirmation bi jeex macha allah léegi moom ay garabam a ngi fi macha allah yi nga xamante ne bu demee ba France Ousmane dina ko ko dina ko yónnee fële ci Amérique macha allah bu ko defee moom Mareetu Kabe mu mun a jot garabam Aysatu Aan aussi moom France la nekk foofu ci Ousmane moom France foofu la nekk moom it macha allah dañ ko doon defal ay ñaan suñu taalibe la mm. aussi garabam a ngi fi mais confirmation bi moo taxoon munul jot garab yi mais ñoom ñëpp ñoo ngi doon déglu ñu toog macha allah ba yàlla def confirmation bi jeex na vol yaa ngi dem mm. macha allah léegi yàlla def na ne moom it garabam pare na mm. moom Aïssatou Anne moom moo ngi fële ca France aussi tamit Gallo Sow Moulé aussi moom suñu taalibe la moom Gallo macha allah moom it am na fi garab garab yi tamit macha allah vite fait la jënd si moom it suñu taalibe la moom it ci Angleterre la ne moom Galosoo moom it garabam a ngi fi vite fait ngi fi macha allah bu demee ba ci Ousmane Ousmane mun koo ko yónnee fële ca France moom Galosoo euh, Amadou Sakho aussi département Centre France la ne moom it dafa jënd cuuraay. volcan jooni jooni bi la jënd moom it cuuraay ma ngi nii moom France la ne Amadou Sakho moom it macha allah euh, cuuraay ma ngi fi waaw euh, kii tamit tonton na Jara moom it moo ngi ci Allemagne moom it daf fi am cuuraay. macha allah bi nga xamante ne waa association bi ñoom ñoo dajale pour jàppale ko jëndal ko cuuraay moom Amadou moom moom tonton am Amady moom tonton kii euh, Harouna Jara macha allah moom Amady aussi tonton Amady Amady So mooy ki ma yónnee woon baafuli barki démb yi mhm. ki ma yónnee woon baafuli moom mi dafa yónnee fi pour jënd cuuraay volcan jooni jooni bi macha allah kon xam nga ne li fi ne yëpp macha allah bitim réew la jëm France ngi fi mhm. Euh, ñetti France a ngi fi Allemagne a ngi fi Angleterre a ngi fi Amérique a ngi fi kon macha allah kon gis ngeen ne man suma garab partout dans le monde day dem ba Chine ba Japon ba Corée Dubaï Arab Saudi partout dans le monde vite fait doomu aadama yi dañ koy jënd ñii cuuraay la ñuy jënd ñii nag dañoo jënd vite fait macha allah kon moo waral lii ñu kaste ko nii macha allah defar ko ba mu baax nga xamante ne parce que vol yi mënuñu yóbbu liquide. mënuñ yóbbu liquide ndox da nga koy def nii nga xamante ne bu nit ki eggee mu tekki ko nga wax ko naka la ko utiliser mun ko jàppale lii vite fait la lii cuuraay la macha allahu lii tamit ay ñaan la yi mën a li leen li leen di mën a jàppale fi ñu ne macha allah kon nag na gars yi gën a góorgóorlu gis nga taalibe yi ñoo ngi jënd si cuuraay bi partout dans le monde ñu ñaa ngi ñëw fii di jënd si vite bi macha allah lii nag suma taalibe yi ñoo ko commandé woon fii yàlla def na nag instant bi am na ay vol yi commencé dem léegi nag ma yónnee leen ko macha allah ñu mun ko ko yóbbu Ousmane sam si sama rusi bu ko jotee mu mun ko envoyé kenn ku ne mu mun a jot mbiram macha allah. am na solo kon est-ce que tey jotul euh, dafa mel ni xam naa ni du yàgg ci kanam tuuti taalibe yi ak euh, association yi nekk foofu am xalaat sax euh, utal la benn jet jet privé boo xam ni parce que gis nañ ni liggéey bi mi ngi mi ngi gën a yaatu di gën a rëy. Euh, te bu ñu waxee Amérique wax Allemagne wax Brésil wax feneen day laaj euh, lu mel ni jet privé nga xam ni am na ci ay internationale yoo xam ni ñi ngi ci àdduna bi am nañ ko te xam naa ne xalaat boobu jombul que ni taalibe yi ñu ngi koy xalaat. waaw macha allah ñun dara ñu xam nga ku yor ay jinne dara jomb la. Mm-hmm. waaye ñun yàkkamtuñu lépp dina ñëw bu soobee suñu borom ñun ñoo mag jat privé ndax li ñu àndal ay jinne lañu ñun ñun maanaam namuñu jat privé macha allah namuñu dara. ndax li ñu yor mooy ay jinne namuñu dara. sant suñu borom maanaam jat privé bi di di di di yóbbu garab yi. waaw macha allah di jàppale taalibe yi. macha allah macha loolu yëpp dina ñëw. bu mm-hmm. soobee suñu borom parce que gis nañu yaa ngi jàppalee taalibe yi ci Sénégal. yaa ngi leen di jàppale ci àdduna fépp. waaw waaw allah te soxla nañ ko. waaw waaw macha allah gis nga lii yëpp bitim réew la jëm. Mhm. waa bitim réew ñoo utiliser garab yi gis ngeen ko. Mhm. ñoom it ci ñun la ñu bokk. Mhm. macha allah di di leen ñaanal jàmm ak xéewal. ñun ñoo ngi fi di jàppale askan bi fu mu nekk ni mbooloo mi dañoo bari. ñu bañ a jël temps ak. bëri nañ ci biti allah. macha allah kon vraiment Ousmane garab yaa ngi noonu Ousmane Sam Sam Rouge su eggee sa loxo nga. jox ko gars yi nga envoyé leen ko macha allah yàlla def ci barke yàlla def ci xéewal ci barke yonente bi ci barke ñetti Thierno Moule Sow def nañ ci ñaan bu baax a baax ku ko gis ku ñam dolli macha allah ku ko laal da nga xam ne laal nga vite fait ngi ci te vite fait bien fait jinne macha allah volcan joni joni bi kon waaw macha allah kon sëñ bi ñu ngi lay jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal fii ci TMS TV jërëjëf sukran merci beaucoup ci yére bi euh, may ma ci TMS TV mooy télé bi feeñeel li nëbbu dama koy bëgg a am <coughs> yére bu ne. daa am mooy feeñeel li nëbbu. télé bi feeñeel li nëbbu. TMS TV mooy télé bi feeñeel li nëbbu. waaw moom mu répété ko quatre à trois fois bu mu bu mu moo ko joxe. waaw mais ah. <laughs> xam na ni mu koy waxee. Mm, waaw. <laughs> mu ñëw ah. waaw mbokk yi. TMS TV mooy tele bi nga xamante ne mooy feeñal lépp lu nëbb woon TMS TV moo leen di feeñal loolu kon nag gaay nañu seetaan TMS TV